que ni euh, xam nga loolu si bokk Macky Sall rek la mën a nekk mais d'aucuns disent nii ni Macky Sall a toujours pensé à Amadou Ba pour euh, donc mu mën ko wuutu dans l'hypothèse où moom mënul am une troisième candidature man yooyu dégg naa ko ci ay ay voix autorisées maintenant est-ce que c'est confirmé loolu xam nga Macky rek ci mën a tontu mais une chose est sûre mooy Amadou Ba premier ministre est-ce que euh, c'était pour mu wuutu ko moo taxoon mu dekk premier ministre est que bu nekkoon fii ba tey bu geddul woon bu geddul woon mm-hmm. est-ce que Amadou Ba dina nekk premier ministre aussi donc loolu yëpp mi ngi doon à mon avis c'est du circonstanciel de lieu et de temps ci boppu Macky Sall selon situation bi ni muy demee moom mooy xool nan la koy defee mais je je crois que ni euh, il a toujours voulu garder Amadou Ba parce que il, il a pensé que ni Amadou pouvait être quelqu'un qui pourrait lui servir dans l'avenir et il l'a gardé léegi nag problème moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo qui s'est retiré à mon avis moi je l'ai toujours dit que c'est un monsieur qui est beaucoup plus docile ci ci ci vis-à-vis de Macky Sall que si ça avait été Amadou Ba. d'accord et, et forcément donc nii nii nii li xew tey jii nii ba mu wax. li mu wax ni moom am euh, moom Abdoulaye Daouda Diallo man bettuma trop parce que je m'y attendais et je pense même que ni Macky Sall bi mu bi ñu ko joxee carte blanche ba mu promettroon sa coalition que ni dans une semaine il euh, dina wax moom kan lay kan lay tippo Macky Sall avait déjà décidé que ce c'était Amadou Ba ouais. sauf que à un moment donné blocage bi mi ngi ñëwoon ci Abdoulaye Daouda Diallo parce que Abdoulaye Diallo qui est parti lui dire que ni euh, li ngay def du dëgg du yoon parce que ànduma ci li tax ànduma ci nag ay raisons yi évoqué woon na ko mhm. Amadou Ba n'a jamais voulu assumer ses responsabilités ci ay quelque élection que ce soit muy élection locale yi pendant qu'on lui avait proposé d'être de liste euh, élection législative aussi euh, c'était pareil il n'a jamais voulu véritablement assumer ses responsabilités ba il pensait que ni Amadou Ba n'avait aucune base électorale et que forcément il était beaucoup moins légitime que lui euh, moom mi nga xam ne il pensait que ni il avait au moins la moitié des députés Bokk Yakaar ah moom Abdoulaye Daouda Diallo qui le soutenait Euh, du Sénégal de, en tout cas des maires de de de de de la coalition présidentielle donc la moitié il les avait donc euh, avec lui plus la moitié des, des députés. Donc il pensait qu'il était assez légitime avec le soutien d'autres personnes, d'autres personnalités qui ne sont pas forcément dans la politique mais qui sont dans le milieu des affaires. Ouais. Des gens tels que, tels que, tels que euh, euh Aronadia, qui, qui n'était ouais. pas très content, euh, mm-hmm. même voire pas du tout euh, vis-à-vis euh, -vis du président Macky Sall parce qu'il s'était à peu près senti trahi par Macky Sall qui avait privilégié, malgré tous les efforts que lui il a eu à faire, euh, il a senti qu'il euh, s'était fait trahir par, euh, par le président Macky Sall qui privilégiait plutôt des gens comme euh, Farba Ngom entre autres euh, Abdoulaye Sylla alors que lui il avait beaucoup fait pour Macky Sall pour euh, pour Macky Sall demoon na ba bëgg a décourager bi muy jàkkaarloog Abdoulaye Wade c'est Arona Dia qui l'a forcé à à à. d'ailleurs ñu bëri nee nañ sax moo financé campagne am d'accord.